xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi doomu yoof caatu montagne arbi baa ngi laaj ay jugeem laaj na caatu yoof doomu yoof caatu montagne arbi sifflé doomu yoof moo ñu woon ginnaaw caatu montagne la ñu lool caatu montagne a ngay jat yoof nee tekk di ko déglu doomu Yoff Thiatou Montagne Thiatou Montagne ci moom doomu Yoff Thiatou Montagne ñaar doomu Caatu Montagne door na léegi waaye dalul Doomu Yoof sànni na léegi Doomu Yoof Caatu Montagne eh eh Doomu Caatu Montagne door na ko moytu ma door ba dalay door te teq na ko caxabal Doomu eh Caatu Montagne lu muy def nii Doomu Yoof jël na Caatu Montagne Doomu Yoof jël na Caatu Montagne Doomu Yoof da ko bëgg a caxabal Caatu Montagne da ko bëgg a caxabal waaye Doomu Yoof dafa naan ba doomu Yoff Thiatou Montagne Thiatou Montagne ñu ngi koy manœuvrer Thiatou Montagne ñu ngi koy manœuvrer doomu Yoff Thiatou Montagne doomu ku ci nekk jàpp nga doomu Yoff Thiatou Montagne taxaw tegal na ko 16 génn nañu eh doomu yoof caatu montagne doomu yoof bañ na doomu yoof bañ na nee ko du ma ci tëdd te du ma ca doomu yoof am benn avertissement caatu montagne doomu yoof doomu yoof caatu montagne eh doomu yoof doomu yoof caatu montagne jël na tànk ya mbaa doomu daanu du ci am mbaa doomu daanu du ci am eh eh doomu Yoff caatu montagne doomu Yoff caatu montagne doomu Yoff jël na léegi benn doomu Yoff Thiatou Montagne caxabal na ko caxabal plaqué na ko plaqué da koy daan waaw waaw Thiatou Montagne na ko daw ak moom Thiatou Montagne daan na ko nee na ko mën na sama bakkan laa ci teg oh, doomu Yoff doomu Yoff il n'est pas mérité doomu Yoff bëre nga bëre nga bëre daan na daan bi oh làmb noonu cey làmb xoolal ma doom Yoff la muy Caatu Montagne la muy def